te di leen baalu àq te di leen baal àq di ñaan ci yàlla kàdduum gi fu ngeen ko déggee seen mbokkum séeréer diggante kal tukloor ak séeréer maa ngi leen di nuyu te di leen siyaara di ñaan ci yàlla ci barkeb seeni maqaamab maam ci daraja yonent bi yal na leen fi yàlla gën a bàyyi ci daraja yonent bi ci barke xaadima rasul muy fàttale mbokki jullit yi ñépp ne di ci fàttaleku sunu bopp di jublu ci kàddu yii may yëkkati yal na yàlla def jàmm ci réew mi aar ñu lépp lu fi doon fitna yal na ko yàlla dàq mu jëm ca alga ci daraja yonent bi ci barke xaadimu rasul mboole mbokki jullit ñi fi teew ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ak ñëpp ñoo xam ne ñooy dégg kàddoom mu ngi fàttali ne yàlla mi ñu bind moo fi ne te leneen newu fi ma bokk nag mbokki jullit ñi gannaaw bi ñu sante yàlla juli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di soñ mbooleem kilifa diini yi ñëpp ne seen mbokkam séeréer sëriñ Ismaila Diouf Noorullah mu leen di soñ ci lislaam bi nga xam ne yàlla moo ko fi indi eh, jaarale ko Jibril jibril wàcce ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon loo xam ne daa jóge ci suñu borom mu ñu mu di atte tey ak ëllëg ma boog nag ñu jëkk a bu baax ne te xam ne yàlla moo fi ne leneen nekku fi

diine la génn. ba diine jii taxaw. njabootu Cheikh Omar Fouti. njabootu Cheikh Omar Foutiou Tall. Cheikh Omar Fouti. Cheikh Omar Foutiou. mu jaare mu jaare Fouta. ba wondu Bañangara. ba te Bañangara. Eh, Imaamulaay. Imaamulaay Yoof. Eh, Bukunta Ndiassane. Bukunta Ndiassane. ñii ñëpp nekkoon fi di jaar ci. baatu laa ilaha illallah ci baatub laa ilaha illallah ci baatub ci baatub astaghfirullah bol islam bel islam rooga jabin yàlla nangu ko kon xundaan den yoqname kon set yi des sëriñ ismaila sëriñ ismaila xooye coodaa noon ne message nene nee na mu di jox message ji rang na de nee ñooñee de rang na ma boobee téye doom day lool mbir mi metti woon na lool kon mbëgg kon nag nee na mu bokk ka hawtit nana den la jële ci ñoom wona ba ci xalifa gi di sëñ muntaqa mbàkke ta andona ñu xam ne sénégal sénégal caciɗe no gerɗuno seen maam ñoo ko geeroon andaplu andamtu tubaab jàppale tubaab bi ba njego indépendance ba ñu am indépendance kon nag kon nag bu ko defee julit julit sénégal sénégal a mbañaani ba drapeau Sénégal bañ nañ ko ba drapeau Sénégal eh, ke fi'inate liñ ci def première nee na la ca njëkk moo ke yaxig na nee na li ci xonq eh, fo xoorale ak bidiw bi fukk bulo na ak bu bulo bi kene fop nee na loolee lépp na lu ci ne première première eh, ka njeero ba njego saaxare dañoo geer ba am moom seen bop te ref ke yaxig na nee mooy lu xonq li xoorale nee na bidiw bi nee moo bara sante réewub julit nee na li ci bulu di wert bi mooy culture di mbéy mi nee na kon nag nee na ñi nga xam ne ñoo seen maam ñoo ko géeroon nee mu bokk nag ñu xam ne diini Sénégal nee na kenn waru ko mën a yàq kon nag nañ xool ku war a yor réew mi ci jàmm ñu am jàmm njaboot gi am jàmm ñu ñaan ci yàlla kooku ne fi ku fi nara indi fitna yàlla boo am réew mi sëñ Ismaïla de sëñ Ismaïla de xañeer nee na xañu ko kenn daal fitna nee na moom daal fitna nee na loolu rek lay bañ ndax roog de ndax yàlla kenn la waa ndaxte wóor na ne ñii ñëpp dey seen maam ña ñoo geeroon ba ñen ña des fa ñen ñi ñibbisi yàlla nag ay axoto suñ boroom daal di jël kaddu googee ndimbal nang ndimbal boobee jagle tino leen jagle ko kenn ta refa sëñ Ismaila muy sëriñ Ismaila Diouf Nourullah ta na muy yeggoo ak sëriñ Tuuba guddi ak bëccëg kon dama bokk hundaan si ne def na me set yi nga xam ne ñoo ne eh, nañ am fayda xam ne te ñu xam ne lislaam day fam ne du fi jóg ba mukk kon nag bu ko defee maa ngi ñaan ci yàlla képp ku dégg misaasam ji nee bul ne nag séeréer wax ni daal séeréer gii daal am ay solo nee na bari na solo déedéet <laughs> jofni solo nee na déedéet jublu ci bari solo de ke jublu mate na lum ci jublu moo di kam anda dafa xam ne o leng reede me nee fi caaci kendeet nee na maam ñaafa nekkoon angeero di islam nee na ñu geer ci islam ba tax geenu ba mu taxaw kon xu waru naa geen kon nag ku ko war a taxaw a geenu na jam gee ci jam fop cee jóg nee na ku war a jóge fitna yit kilifa yooyee nee na ñu war cee taxaw nee na loolee rek la ci jublu gannaaw tam xarat nee na nee na woote biñ defoon daaw na na diine Sénégal foofu. ci diine Sénégal ñëpp. mu co mu rapport. nee mu joxe ci rapport. Eh, ci kilifa ki an ci kilifa yi nga xam ne. te ngooytu Sénégal. nga xam ne ñoo woote Sénégal. tu fa Punjab am. te ñëpp woyu ko ci. ba ba coodaamo. ba jox ko. Eh, baatin. mu bëgg a nee na mu bëgg a wootewaat nee na buñ tam xaratee ba noppi ba bés ba delisi nee na mu ngi woo julit yi ñëpp nee na ñu magalaat bés moomee nga xam ne lim ñoo ci jublu moo yëkkati lislaam ne julit ki fop na yëkkati diinig islaam ci mbooleem julit yi ñëpp kenn da ne loolu rek laa ci jublu kon may xadaaroo kon maa ngi ñaan ci yàlla yaasarooga bisa inta jam yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm xuuna gara it képp ku ñëw it andaale nga xam ne ku waagoona lépp loo moon na taalifa kenn maa ko ci taalifu mag ña ña xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon nga yaa xam xaadim rasul yaa xam alxaaji Malick yaa xam Baye Niass yaa xam imaamu Laay Yoff yaa xam Abdul Xaadir Jaylaan yaa xam Buur Kunta Njaasaan yaa xam imaamu Laay nee na ñépp la ci woo bés boobee nee na di ci woo jullit yi ñëpp di ci woo tarixa yi yëpp di ñaan ci yàlla nawet gii ñu ne nee na na ndox mi ubbeku ñëw nee na na ubbeku ñëw nee na maa ngi koy ñaan yàlla maa ngi koy ñaan yàlla ci daraja Mikaila ci daraja Mikaila mu ngi ko koy ñaan ci barke Mikail ci daraja Sëñ Fallou ci daraja Sëñ Fallou ci darajay Ahmadou Fadal Kolda maa ngi ñaan ci yàlla yàlla ubbi ndox mi mu ñëw lool ne jig ñu lool te lépp lu ci yàq yàlla bu mu ñëw bu mu ñëwee ak jàmm yàlla na agsi ak jàmm kon maa ngi ñaan ci yàlla mbokki taalibe xëyontuma liggéey mbokki taalibe yu mu àndal ci liggéey gi ci njiital sëriñ Cheikh Ndigal seen njàmbur siin ak mboolem taalibe yi ñëpp ak mboolem seex yi ñëpp ak mboolem jawriñ yi mu ñaan ci yàlla yàlla ko defaat ay ati at ci daraja yonent bi ci barke xaadim rasul di ñaan itam yantuma lislam mbokk yi ma eh, àndal ci lislam gi mu di ci jiital alhaaji eliman moussa sarr foyo yontuman wacca alquran ne fop ak mboolem ñim àndal ci alquran gi ñépp mu ngi ñaan ci yàlla yal na leen fi yàlla yàggal lu ngeen fi tudd lu ne lu ngeen fi jàng yal na ko yàlla nangu di siyaare itam jawriinu xale yi te def sëriñ xaatim di ñaan yàlla yagal ko fi lool ak lépp luñ ko yéenee liggéeyal yal na leen ko yàlla defal ne mbokku ndekandoo ñëpp ñëpp mu ngi leen di sant di leen sant bu baax di leen fàttali it ngeen góorgóorlu di def lu baax te bàyyi lu bon ngeen góorgóorlu adduna alaxira rek a ciy topp ndax ñi tedd fii nii suñ kanam ndax gén nañ leen nee na ñun ñëpp falañ jëm leen la la yóbbu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba yi yóbbu woo xaadima rasul ak njabootam yi kon nag nee na kon kenn jarta yaadu na ñun ñëpp ñu fàttaliku ne adduna alaxira kon nag yal na yàlla def jàmm eh, jàmm googee nag askan gi ma anal di doomik séeréer maa ngi leen di fàttali ne jaamu yàlla yàlla jóge ngas ngase suñ borom faxut faxut te faxluwut kon nag kon nag bu ko defee góorgóorlu ñu góorgóorlu bés iid garay bésu iid bii ñëw na waray njegelof rey nga saw gat ke moƴ taaga la o taddanga boo agee xato xoor nanga oor a xooranga boo ooree ɗegit ɗegit resa xeeña ke defee buñ defaree gat nga ba pare nga jël reçoit doge ko yow bi nga xam ne yaay borom ker gi loolee moo ci gën ñu ñaan itam eh, képp yoon woo jaar boo ñibbi nga jël weneen yoon wa ndax malaaka yi dañ leen di seere ne ci ñëw gi ak wi ngeen di ñibbee kon nag kenn ku ci ne fi nga jaaroon bi ngay dem booy wañeku jelaatal weneen wuyoon loolee lépp malaaka yi den koy seere kon yal na yàlla def jàmm mboolem taalibe yi ñépp sant na bu baax ndax mën naa wax ne ren la lu toloo ci téeméer ak juróom benn ay ay gàtt a garayme ñëw na fi nda koy waaye nag xëj ke yàq na te xëj na nee na li ci des a neeway lool nee na neew na lool kon nag kon nag ñu ñaan ci yàlla nee na ñi ko def yal na leen ko yàlla nangul beneen itam yal nañ ko fekke waat ci daraja yonent bi ci barke xaadima rasul sant na nañu góor goor ak jigéen mag ak ndaw di ñaan ci yàlla tànk yi ñu fi ñëwee ak yi ñu ñibbee yépp yal na ci yàlla def tuyaaba ñi ci tukki ñu ñëpp si ak jàmm ak sarica bu doon ñi sàmm sàmm yi yàlla aar jur yi yàlla bu ci sac am yoon di ñaan itam mag ñi ci dëkk bi yàlla na leen fi yàlla gën a bàyyi bu baax ci daraja yonent bi ci barke xaadima rasul dëkkandoo wer ci tun bi ñëpp kilifa diine yi ñi fi wer ñëpp ko santaaden nee na mu ngi leen di san saɗaaro bi di ñaan ci yàlla yasarooga ɓaato haƴa nuun na leen fi yàlla gën a bay daraja caaci ci daraja seen maam ndax na nday o me refna ndax mel na ne fi mu ne ko hëpnatee doole li ci ëpp doole fop xundaa nuuna ñëpp ay set lanu nee na doom ñi nee na néew na ci ñi ci ci des kon yal na leen yàlla aar defal leen fan wu gudd kilifa diini yi ñépp nee na kum tudut sa turit nee na mu ngi sant mboolem julit yi ñépp te di leen siyaare yéen ñépp seen mbokkub taalube Serigne Ismaila Diouf Noor Wa mu ngi leen di sant di ñaan ci yàlla yàlla yal na yàlla def jam jam googee we na kot ku ko fi nar yal na la fi ku fi nara indi fitna nee nanga a able e, Basiru Seen RTS. Basiru Seen RTS. yàlla télé nga xam moo yore bi. nee na lay sant. E, ci njiital Daawda mi ko fi yebal. jaaw datin habluna men daaw datin mi nga xam ne moo ko fi yebal mu ngi ñaan ci yàlla yàlla na ko yàlla yokkal mon gi sant wax mbokku taalibe ko di sant mboole mbokku taalibe ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di sant dëkkandooy ñëpp góor be fore ak jigéen sant na leen bu baax siyaara fog di siyaare mbokki ñëpp di leen baalu ak waasa leen baal ak fa ustaas ak fa nee na ustaas yi ñëpp tuma liggéeyale ñi nga xam ne moom la bokkee liggéey gi nee mu ngi leen di sant bu baax te di leen siyaare bu baax te di leen baalu ak bu baax te di ñaan yàlla def jàmm ndox mi ñëw añ a ñëw te bar lool eh, nee na bu denu lor kenn bu ndoxum suuf lor nit waaye na ñëw ak jàmm te set guyi ci daraja yonent bi